légui nak limay def man mi jigen yow mi góor nang ko def te xey di liggéey yaa ngi dégg te bu fekkee ne bëgg nga relation bi continuer kër gi nga nekk da koy génn parce que mënatuma fay bi non man amul problème yow yi kaas ni yëpp yooyu yëpp boom su tukki woon rek mu jeex mais comme nga rek may financé amul benn problème kon yow Abdou yow yow Abdou tu t'entends parler yow da ngay xaar pour tukki pour mën ma ma wala nga sa wala nga sa dara mais yow man man man man man je rêve quoi ku tukki ñëw takk xamal ne bu dee mën nga yaakaar pour voyage doo dem ndax yow segam Sénégal gi nga nekk di riitambale di def lu la saf kon yow boo tukkee kenn waxatu ko baa duma la yóbbu nga tukki nga dem sa yoon bàyyi ma fi dem wuti ñëw takk la yow Abdou bàyyi ma boo doon wuti kon fii nga nekk nga koy wanee olof Njaay nee na cin bu naree neex bu baxee lay xeeñ waaye yow sa bos bi baxul sax bay xeeñ tu acceptes ma proposition. non proposition la relation continue. saa yi moom bu fekkee ne accepté woo ko nag moom nga dem ma dem. mais mais ben, accepté naa ko mais bàyyi ay relation ay dem-dem yooyu damay tiital quoi. léegi nag après dinaa def chèque beeg lépp jox la mais da li nga bëgg lépp da ma koy wax. après ma ma doon suba wala. wala fi laa Salam xaroon. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Eh, ça va. <laughs> alors Baye. Fall noo def. ça waa lépp jàmm alhamdulilah. alhamdulilah baarikàlla. alhamdulilah. Euh, Baye tey nag moom wax dëgg yàlla. Euh, boo gisee ni ma def nii sax fair play la tey moom jàmm moo ma yëkkati. Mm-hmm. waaw parce que dañ ne ginnaaw ay jàmm te yow yaa fi sans mbokk. Mm-hmm. yaa fi sans mbokk histoire yëkkatiw ma yëfu seytaane yëkkatiw ma ay wër di duulalaate yëkkatiw ma ay wër di fen yëkkatiw ma tey daal leen dong ma yëkkati muy ñëw bëgg a waxtaan ak yow ñu delloowaat maanaam ah sunu ànd ca na mu meloon. Deng, wow, lagi nak nag man damaa juumoon erreur am te sax ci loolu laa bëgg ñëw ak yow muy sa boy bi sa bi dëkk Kandu. Wah wah wah. Kau masak turam. waaw bugguma cee sax jaar. waaw voilà boy bi damaa fekk ma tëdd fële. Hmm. koor gi jàpp ma. Hmm. Euh, buntu ke jipsar, jipsar, wah, mata kau ma taxaw buntu kër Jib Sarr fa booy bi ñëw fekk ma fa. Euh, euh, man man man def erreur parce que maa ne maa ne ko baay joxu ma mu ne ma nag comme bàyyi joxu la dangay ñëw ma jox la ma ne ko indi mun ne ma affaire timbre laay jënd yoruma xaalis erreur sax am na ndax xaalis boobu ba ma jotee mënoon naa la cee may mais defuma ko dama koo jox muy vingt mille francs booy bi ne timbre lay jënd noonu la yóbboo xaalis ba France daal di xëddeen moom du moom du la mu ba ma tëdd fa tëdd naa fa nag ba ay ndog lu ci desoon matul sax dix minutes loolu dérangé wu ko sax gisuma ko dérangé wu ko yëgu man maa la gën a jommi man lutax ma tok fi toogaanu du xam nga lan la sama trois cent mille 300000 tey. trois cent fukki junni. mom lay xaar ni du. yow fo jele juróom ben fukki junni yow ko ma nak yow yow yow nit nga yow bay juróom fukki junni su ma la waxee fu mu ko jele du dañ na ko jox mu jox ma 15 millions yokon nako ba 25 millions. nga jox ko 300000 mu yob ko. taxul lepp <coughs> lepp lepp euh bay comme noy nga bop ba boy bi dóor na man mom dooru ma dani ma won dana ma jox pour ma def 15 millions ma yeggale keur gi sama samay entreprise. bay da ngay ñak han da ngay ñak parce que man sama 20 mille moom man dama koy jox yow ya xam lepp loy def ak mom nga def ko ak mom mais boy bi billahi bu ñu jàkkaarloo dina ma fay sama 20 mille wala ma dóom ko lu leer nañ ñu laa la wax man da bay fay yow nak ya ñak fay da dugg ci ay boy yi nga xamne ne ay dóor kotu marta lañu nga dugg ci ñom ñu door la lolu sa problème la. 300 mille yooyu mënoon nga cee liggéey beneen façon liggéey. Ah, bu ma xelal dégg 300 mille boo xamoon fu mu jugee yëpp ba fi mu jaar ba yëg ci man euh, mu la ko dinoon gàcce dal la anam. man gisuma du xaar. non def def la bu ko defee jàmbur yow yaay dee ci kaso bi dama de. Ah, waaw. ci lu yéen ankay. ah demal du fay. non man fay de. lu leer ah, naññ laa la wax. demal du fay la. fay. man ngay wax ak li wax maa ngi dem maa ngi dikkaat. waaw yow dimbali ma waay yow. damaa yor suñu dimbal. dimbali ma waay dimbali porte chambre bi. yore lu ma la laal ma nga nekk fii wax rek ko jom nga nga ko koy tufli rek.